moom ñenn ñi ay tubaab lañ sax c'est ça le problème lan moo tax nga taal drapeau France waaw parce que dafa am dafa am san yaa ngi koy yaa ngi koy kii xëy na pour leeral rek euh, Samuel Paty euh, benn professeur la boo xam ne fa nekk France euh, di jàngal ay xale mu jël wan leen benn photo sax du ma ne benn dessin benn nit koo xam ne dafa waaw bu simmi boo xam ne dafa set simmil ba set wane ko ne wan ko xale yi ne leen c'est le prophète Mohammed subhanallah ñu jégalu ci li ñuy wax sax donc loolu mu nekk loo xam ni dafa indi coow benn tchétchène un jeune tchétchène de 18 ans daf ko mujj rey kon daf ko rey daf ko rey rey mu ñaaw mais loolu nag aussi après nag dafa taxal am réaction bu président euh, Macron def président France bi mu génnee dafa wax ni France du renoncé di caricature maanaam mooy ubbi nañ buntu képp ku bëgg kokkali wala nga bëgg ñaawal prophète bi pour xeex ñoom pour mel ni lii naqari na leen ak def defee ko noonu maa ngi dégg ay information boo demee Montpellier wala dañuy préparer pour def ay projection ci caricature prophète subhanallah donc loolu nekk loo xam daf ñu metti ñun en tant que musulman en tant que jeune en tant que activiste ñu ñu gis ni yi nga xam ni keroog ba jotee dañoo daw ne ñoom ils sont Charlie nga xam ni keroog dañoo gis ni suñu ministre de l' ministre de l' intérieur euh, suñu ministre du de affaires étrangères euh, Sidiki Kaba demoon ba fële ca Israël di julli julli juif xam nga ci ci ci kii bi dafa ñoom ñu jiwaarloo trop ak ñun suñuy ngëm-ngëm ak suñu réalité ak li ñu gëm suñu dëkk alors moom metti ñu chaque fois duñu xaar gisuñu kenn ku si wax ñun ñu ne dañuy def ak ñoom nit ñu tooñee ñu tam ñu tooñee leen noonu parce que xam nañu drapeau symbole bi ñuy def ci ñoom que dafa sacré ci ñoom mais ñu wan leen ñun prophète Mohammed moo gën a sacré loo xalaat ci àdduna pour nous les musulmans moo tax ñu lakk drapeau France. léegi boycott bi ñuy boycott boycott bi ñuy wax nag moom est-ce que Sénégal mën nañu koo def suñ ko defee est-ce que dinañu lekkati. merci est-ce que dinañu jënd carburant. est-ce que dañ wootee est-ce que dinañ dem nguur très pertinent parce que ñun xam nga ñun dëkk boo xam ne dañu nekk dëkk boo xam ñun ñun au fait ñun ak France bi dañoo sukk suñuy um jébul jox leen France c'est-à-dire fii tey boo nee da ngay boycotté France am na loo xam ne doo ko amati am na lekk boo xam ne doo ko lekkati parce que lépp luy dox fii français yi ñoo koy produire loolu moo am moom daal wax sànq ñu ne pour nga dem non non du ma contre loolu c'est-à-dire peut-être ñoom mën nañ ko si preuve. non est-ce que da ngay appeler boycott. peut-être mën na nekk c'est-à-dire di contre loo xam ñëpp si combat bi jiitu Macky produit France la mooy boycott bu njëkk moom la war a njëkk boycotté donc compréhension boobu noonu lay wax quoi pour ñu comprendre ni affaire war mooy français dafa am ñu gëm comme ñun nous sommes des pauvres man man maag sama yaay sama sama yaay xamul Auchan

mais li ma bëgg wax rek mooy que tam ñun li ñuy dundee ñàkk bi ñuy dund fonde la ñuy añee di ko reere ak cere li ëpp ci Sénégalais yi duñ dem Auchan amuñu njëgu Auchan dem ba foofu noonu sa Auchan du jaay fonde juróomi dërëm ci rek meew la añee sama waa ji ñun loolu la ñuy reeree. est boobu du ngeen dem ah, drapeau. non non loolu du xalaat c'est-à-dire topp ñu kenn si la cest il faut ñoom ñu xam ni le prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mais attends lan moo gën a violent nga jàpp yaakaaru ay un milliard de personnes nga jàpp ko di ko lakk nga jàpp ko di ko saaga

xam nga est-ce que lu wax ngeen lakk drapeau France dafa sacré xam nga symbole. loolu la wax fële ci comme ça waaw may leen amul lu gën a sacré Seydina Mohamed loolu laa la wax PBA ko gisuñu gisuñu ko te bu ñoom bu ñu ko gisee nañu ko wax donc man mënuma chaque jour su ma xëyee dem ci jàkk ji ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah après ñuy caricature prophète bi di ko wax naka suñu noonu après ñu croiser les bras comme si de rien n'était duñ ko nangu donc loolu moo tax ñu à chaque fois dañu bëgg opinion internationale loo xam ne le Sénégal s'est manifesté peut-être suñu njiiti ñoo nekk doomu France. yu a def yu bari yoo xamante ni yu bari bari ay manifestation dina am xam ni yonent bi lan la leen jaral bu fekkee jaral na leen lu ndaw na ku nekk wane sax au moins mais islam la na ma cay demee ak est di ngeen am ñu leen jàppale ci loolu. waaw en tout cas euh, dégg naa ay appel yu bari yoo xam peut-être amoo confirmation bi carrément moo tax du ma ko mën wax si télé mais xam naa ni en tout cas këru diine yi ñu ngi mobilisé wu pour xool naka la ñuy def pour def manifestation yu mag et def appel tous les sénégalais ku nekk drapeau France bu ndaw nga lakk ko parce que wan leen ni drapeau bi dafa tuuti ci kanamu Seydina Mohamed. Mm-hmm. que tey jotul tamit euh, àdduna bi ñëpp euh, ñu xaw ku ci nekk euh, jox sa morom li nga moom bàyyi xel bu baax diine ji ndax diine dafa sensible. Mm-hmm. li mu mën a taal dafa bëri li mu mën a yàq dafa bëri ndax tey jotul xel dellu siwaat mm-hmm. ku nekk bàyyi sa morom li nga moom balaa ñu egg foo xamante ne si xëy na du ñu mën a dellu siwaat gis nga Charlie Hebdo bi ñu caricaturé prophète bi au moment dafa génn États-Unis quoi salaa salaam dafa ne mu fi kenn caricaturé kenn c'est-à-dire loolu sax mu njiit dafa am solo quoi dafa am influence bu parce que président mooy représenté peuple kaddu mooy kaddu peuple donc c'est très important donc léegi li am solo mooy. il y a aussi il y a aussi le respect ak religion boo mënti nekk il y a aussi le respect de l'autre ak religion boo mënti nekk que tu sois chrétien wala gëmoo dara wala mais ku nekk dafa respecté ngëm-ngëmu jàmm l'autre jour maa ngi koy wax Sénégal on s'attarde ci ay murid bi tijaan bi xaadir bi la bàyyi essentiel parce que bu fekkee kër gi diine bi mooy kër gi julit yi murid yi am nañ fa nekk tijaan am fa nekk ñu ñëw di taal kër gi nga ne non man sama néeg laay toppatoo mais yow comprendre mm. ko bu ko Sénégalais bu nekk comprendre rek après dañuy gis ni ñu mën a ànd ñun nekk benn xeexul suñu religion maanaam daal bu gaal gi di suux bu lijjanti sa ëmb lijjantil gaal gi <laughs> bu suuxee nga pëtëx <laughs> xaw ngaa ñeme kaso ba nga ñett ñu na pour ko man chaque fois su sama kër damay delluwaat damay def li ma war a def cest à ragal kaso ba du ma sama dëkk mais bi nga génnee tuuboon nga ne yenn kàddu yi dootoo ko yëkkati ci penc mi. Mhm. ah yaa ngi ca ba léegi. non xam nga xam nga lu nekk rek c'est-à-dire yi muy ñëw xam nga bu ñu laalee diine rek da dem ba yow dootoo mën a contrôler foo amoon doy waar xam nga bu ñu bu ñu gëstoo nii. foo amoon doy waar wax jafe. waaw merci beaucoup merci donc elle a ah. euh, damay gis yaa ngi wax boobu ba léegi dafa am loo jàng wala. Ah. foo egg ci wàllu kii. jànguma daara li jàng yëpp ñoo ma ñoo ma ko jàngal ñoo ma ko jàngal Thomas Sankara xam nga ay eh, waaw bon Sarr yi dama bëgg wax ni Sarr yi man ñun en fait ñun on se documente nekkuñu ñoo xam ni eh, ci école française bi lañ jàngee jàng yu nekk ay nit yoo xam ne dañoo jàng suñu réalité dëkk après topp suñu diine quoi jërëjëf Abdou merci beaucoup